jërë ngeen jëf ku ruur sa bopp ci xetax mbaam yéey ko góor jigéeni réew mi du ñu baaxle ci réew mi njiit réew mi Macky Sall moo ko wax wax jaa ngi ci soleil national ubbil journal bi ganam gi ci réew mi di Justin Trudeau premier ministre bu Canada la doon waxal xamal ko ne ak ngóor jigéen suñu société nangu ko la nañu lu jëm ci daganal ak ngóor jigéen ci réew mi njiit réew mi Macky Sall demee wu ca masla nee premier ministre bu Canada a dagan démb Justin Trudeau premier ministre bu Canada ci waxi ngóor jigéen nee ko di daganal ak ngóor jigéen ci Sénégal loolee mënut nekk suñu aada ak suñu diine da koo dàq te it gisuñu dara lu ay mbaa lu ñuy sene ci loi yi tere ak ngóor jigéen ci suñum réew suur nañu booy seet ba ca biir coowal daganal ak ngóor jigéen ci réew mi borom du ma ne déet du ma ne waaw di Macky Sall démb moom nee déet mukk du fi amee Les Échos gis ne taxawaaye la ca wax a dagan ci da doon raay wax ja ndax na fii ci réew mi dañu fi tere kuy fësal ay relation contre nature ay góor jigéen ak xeet yooyee waaye nag du tax ñi choisir dund loolee ñu leen di génnee ci réew mi Les Échos nañu lii la Macky Sall wax ci français Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ne ci xët mu njëkk Vox Populi loolee lépp dafay gudd wax ji gudd gàtt moo di ak ngóor jigéen dee su ko fi daganal bu neexee yàlla ñu bàyyi waxi góor jigéen ñi te wax ci waxi pédophilie gi bëgg lëmbe Sénégal xale ci école de football Dakar Sacré-Cœur ñoom ñëpp kaso la ñu fanaan biig tuumay abus sexuel sur mineur maanaam saay-saay ay xale yu foccagul moom lañ leen di toppee ñoom ñaar mu di Sylvain ak Guèye libé nee nañu daanaka ñoo bokk oto bu ñu dugg ba ñuy dem ci rëbës enquête dina kay nañu kii di Olivier Brice Sylvain doyen des juges Samba Sall moo ko mandat dépôt li ñu koy tuumal mu di mbirum pédophile waa ji di Olivier weddi ko ba mu set wecc nee na tëddeewul benn xale saay-saayewul benn xale massage la doon defal xale yi te ca la yam l'observateur mel ne ku na lool ak li xale yi wax enquête producteurs yi ubbil yéenekaay bi ci xale yi ñu ne da leen doon saay-saay am na ci xale bu am fukkeet ak juróom-ñaar nee Olivier da ko doon maaseel ay adducteur waaye massage ba yamul woon rekk ci adducteur yi am na it si beneen xale bu leen wax ne ab óomam la ko waa ji doon maaseel waaye mujj gi maasé na leneen lu bokkut akub óom am na it si beneen xale bu toll ci fukkeet ak juróom-ñaar maanaam 16 bu ne enquêteurs yi Olivier Brice mas na koo fanaanoo ci ab Wakam di Djidiack Diouf bu Jolof Band mi ñu tudd ci coowal trafic de visa ñoom ñëpp kaso la ñu fanaan ñu yeewu yam ci la Le Quotidien gis fa xibaar bu ñeel Lamine Koyta di waa ji faatoon ca Fatick yéenekaay bi nee nañu autopsie bañ doon def ci ab néewam résultat yi génn na la ca nekk moo di waa ji kenn dóoru ko mu faatu mort naturelle la maanam faatoo ñëw mu faatu Soleil national dëggal xibaar bi ci xët mu njëkk wax ñu ne dawalkatu moto Jakarta bi faatu woon ca Fatick verdict bu bi nee na mort naturelle la naturellement la tribune gis na ne colonisé gi réewum France réew di Sénégal Sénégal ba léegi jugu fi li tax mu bind ko mooy nee na entreprise yu bari yu nekk fii ci réew mi réewum France la fekk baax journal bi jukki ci banque SGBS CFAO Total Senac Auchan Canal Plus Orange Money Fonroche ak Alstrom journal bi boole yooyee yëpp gis ne France ngar dajjoon na Sénégal Sénégal ab gouvernement l'observateur nee nañu am na ñaari ministre yu ca nekk yoo xam ne neexoowuñu du ñu jaaroo ab taal mu di ministre économique finance Abdoulaye Daouda Diallo ak ministre du plan doole ba tax ñu dëkkee fantasiro journal bi nee nañu mbirum xaalis la li ñu naan les fonds communs moo indi coow li coow laa ngi ne cobbay ci lycée Kër Mbaba Jaxu ba nekk ca Nioro yëral xët mu njëkk Vox Populi benn professeur moo fa jam paaka ab élève